xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidil mursalina sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an jami'i xulafaihi wa asxaabihi wa awlaadihi wa durriyatihi ridwanullahi alayhim ajmaina bokk yi nga xam ne yéen a ngi topp suñu jataay fu ñu mën a toll ñu ngi sant ñëpp di jox ku ne wàccuwaay bi mu moom euh, di leen tatagalit ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu nekk muy shahru ramadan al mubarak dañu ko waxe woon ci suñu jataay yi weesu rek weeru alquran la weeru dox bokk la weeru def benn ñuy jox la fukk la weeru bonus la pour képp koo xam ne jullit nga waaye weer la woo xam ne it yërmande la ngir xeetu yonent bi alayhimu salaatu wasalaam mbokki jullit yi ñu ngi ci suñu fukkeeli fan yu mujj yi ñu ñaan yàlla ni ñu ko doorewoon ca njëlbeen ba ci yu mujj yi ñu àggale ko noonu te ñu ñaan yàlla yi li ci diggante bi lépp li ciy rëcc rëcc yàlla nañu ko yàlla jéggal li ciy lu baax it yàlla nañu ko yàlla nangul tosu ko nangoo yàlla na ko fulandi yomb na ko am na ko yàlla nañu ko defal euh, mbokk yi laylatul qadr nag yenent bi daana wax ne taxarraw laylatal qadri bi asril awaaqiri fi ramadan da ngeen góorgóorlu ngeen lañ bët lañ bët nag kuñ ko defloo mooy dañ la seetloo luñ la seetloo it loo xamul fu mu nekk la nga di ca soob sa loxo di yebal sam xel nag boor boo ko yaakaar nga nappatu ko fa yonent bi ne na ngeen seet laylatul xadr ci fukki fan yu mujj yi ci weeru koor wax nañ ne sayyidina jibril alayhi salaam ñëw na déey yonent bi laylatul xadr wax ko bis bi mu génn dem di ko wax saxaaba yi fekk ci biir saxaaba yi am ñuy jàppante ci werante mu di leen tàggale far ko fàtte am na riwaaye yu wax loolu waaye daal di gën a wér mooy yonent bi daf ne na ngeen seet laylatul xadri ci fukki fan yi mujj ci weeru koor wi mag ñi sax joxe nañ ci jàngale yu bari ndax yàlla moo ne ci alquran inna anzalnaahu fi laylatil xadri wa ma laylatul xadri laylatul xadri ñu ne boobu foofu boo ko seetee vingt sept baat la kon ñu ne kon nañu ko seet ci guddik fukki ak juróom benneel ñaar fukk ak juróom bat sedd di ñaar fukkeelu fan ak juróom ñaar boo demee ci suñu bokk chia yi ñoom ñi ngi koy seet ci bu fukki fan yi teroo fukki ñaar fukkeelu fan ba ñoom ci lañ koy def bat seet di ñaar fukk ak benn waaye lépp gëstu la rek yàlla nañu yàlla dajale ak moom ndax guddi la goo xam ne alxuraan wax na ne guddi gi wecc na junniy weer junniy weer nag dañu ne boo ko seetee mooy quatre vingt ans yu teg six mois yoo xam ne danga ko jaamu yàlla ñu nangul la lépp mbokk yi benn fan ku ko jaamu yàlla yàlla nangul la sa jaamu yàlla mën na la sauver àddina sove la àllaaxira sauver waale it ku bokk ak ci yow ci xeetu ndey mbaa mu bokk ak yow ci xeetu baay kon yàlla nañu yàlla màngaloo yiw laylatul xadr ah ñu di ko seet nag ci ñaar fukki fan yu mujj yi ah, yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci téere bu ñuy wax durratu naasixina ba nga cay jàngale ne yonent bi bi mu demee ba yëg ne léeg mu tàqali ko ak saxaabaam yi maanaa léegi tey dem jot dem barzaq daf ko tiisoo ndax jaaxle na ne su ma fi jógatee fu yiwu yàlla di jógetee di wàcc ci kaw jullit ñi affaire bi jaaxal ko trop yàlla doog a sidna jibril alayhi salaam yàlla yebal ko ne ko demal ci yonent bi nga jàngal ko saar wi sidna jibril dekk sako ne ko inna anzalnaahu fii laylatil xadri ñun yàlla ñooy wàcce ci guddig laylatul xadr wa ma adraka laylatul xadri ñi ngi laaj lan mooy dëgg dëggi laylatul xadr laylatul xadri laylatul xadri daal muy guddi dogal gi nga xam ne tanazzalul malaaikatu malaayika yi danañu ci wàcc war ruuxu ak jibril fiiha ci guddi googa waaw kon jibril danañu nangu ne dana wàcc ñaar fukkeelu fan ak juróom benn ci weeru koor ba bañuy noddaat fajar ci lay jibril di xaacu malaayika yi ne leen jéegaat leen wax nañ ne na guddi googu am na bonus yu bari yu ci am yonent bi sallallahu alayhi wa nee na guddi googu mooy guddi goo xam ne yàlla dana ci xool bëtu yërmande mboolem ku di jullit mbooleem ku di ab jullit yàlla dana la ci xool bëtu yërmande waaye lu yërmande ji di yaatu yaatu yaatu ñu yëg ne ñett rek ñoo ci bokkul bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñooñu ñan la yonent bi ne xaatiu ruxum ca la bokk mooy koo xam ne danga dog ak bokk koo xam ne sag bokk danga ko dog guddig laylatul xadr boo ko ci yërmande yàlla di séddale ñu ne ko ak ban mu ne koo xam ne mudminul xamri la mooy dafa dëppati ko naan sàngara fu mu toll mi ngi ci sàngara màndi rek moom bu naaj wi tàngee sax mu ngay kayang kayangi kooku bokkul ci bénéfice guddi gi ñu ne ko ak kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne aqul li walidayhi koo xam ne sa ñaari wayjur da tongoo ak ñoom li guddi gi yaatu yaatu ak li yërmande ji bari bari bokkuloo ci yàlla nañ ci yàlla musal muy guddi goo xam ne wax nañ ne dogal yu bari ci lay wàcc dogal yu bari ci lañu koy wàcc ci la malaayika yi di indi kaye yi ñu réviser waat ko ñi ciy fekke déwén ñi ci dul fekke déwén ñi ciy yokk ci wërsëg ñi ci dul yokk ñi ciy amee ak ñi ciy ñàkk ñi ciy yéege ak ñi ciy wàcce kenn ku nekk sa list ci lay wàcc bu ñu la consulter ba wax la fa nga féete ci lañuy jëlaat seeni bagage ñoom dem muy kon mu mel ni li yonent bi tiisoo woon ci saxaaba yi ngir ñu am ko ci wàccu yërmande joo xam ne dana jógewaat ci asamaan si muy connexion boo xam ne jullit ñi danañ ko amaat ci seen diggante ak seen borom yonent bi tiisoo woon na ko waaye yàlla may na ko bénéfice boobu mu am ko ci guddi lay laylatul xadr euh, mbokk yi beneen bi ci des am na ci yeneen téere yu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am bés muy nettali saxaaba yi xew-xew yi amoon ci gannaaw yi ko jiitu euh, di leen ca nettali ba nettali leen ca xissatu samun nabiyullahi samun nga xam ne jàmbaari fàkk tëdd la woon nekkoon yonent ci banu Israil nekkoon ci dëkk di woote ne yàlla kenn la waaye ñu lànkal ko oote boobu weddi yàlla mu ne yàlla daal danaa def jihaad fi sabilillahi fas yéenaa xeex rek ba fu ma mën a amee dëgg ngir kalimatu shahada jóg danaa ko def di oor bëccëg di yendoo xeex bu ngoon jotee mu fanaana naafi la yorul woon it lu dul benn ŋaamu gileem ci lay lekk ci lay naan ah, mbokk yi samoon def na ci loola junniy weer yoo xam ne daf ko xare boole ko jaamu yàlla gu rëy googu mu jaamu te yàlla nangul ko lépp saxaaba yi ñee ko moom samoon moomu ci xéewal googu mu am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni ko ñeewante waat saxaaba yi moom it ci yërëm leen ngir xiif gi ñu xiif xéewal yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala yebal seydna jibril mu dikk jàngal yonent bi inna anzalnaahu fi laylatil qadri moo tax tanazzalu ruuhu fiiha wal malaaikatu eh, tanazzalu al malaaikatu war ruuhu fiiha bi izni rabbihim ci kon ci seen digalu borom lañu ko defee ndax yàllaa joxe ordre ne wàcc leen ci suuf si xoolal leen ma sama jaam ñi bëtu yërmande photographeal leen ma sama jaam ñi nga xam ne dañoo fas yéena xiifal seen bopp weeru yàlla di ko xiif di mar duñu lekk duñu naan duñ ci wax mbuusóor duñ ci dox caaxaan di jàng alquran di fanaan naafila ci jàkk yi ñoo ñu dem leen ngeen fotol ma leen indil ma seeni ruux fii wax nañ ne malaayika yi bu ñu fa bu ñu wàcc ci ko suuf si képp ku seen caméra jàpp dañuy foto sax ba foto sax xol bi la ca nekk dañ koy foto yóbbaale kon yooyu appareil am na doole mbokk yi euh, bi izni rabbihim min kulli amrin ñu ngi koy defit nag ak bépp ndigal min kulli amrin ci bépp ndigal salaamun jàmm joo xam ne hiya nekk na ci guddi googu xatta la ay fajri ba ba fajar ga di xar wax nañ ne li ko dale fi jant bi suuxe ci guddi ñaar fukki fan ak juróom benn fi jant bi suuxe ba fa ngay dégg ñuy nodd fajar ku fi ñaan yàlla yàlla may la ku fi tuub yàlla jéggal la ku fi laaj yàlla jox la ci génn guddi googu rekk lañ ko am mbokk yi muy guddi goo xam ne nag euh, kenn ku nekk war ci nàmmaat sa bopp boo ci amoon ay nelaw nga fexe koo toxal kenn ku nekk war ci nàmmaat sa bopp boo ci amoon occupation nga fexe koo dindi jël guddi gi def ko sa occupation ndax sens la boo xam ne xamuloo ndax déwén dana la fi fekk wala du la fekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa baaxoo woon na di def bu weeru koor wi teroo buñ demee ba ci fukki fan yu mujj yi day toxoo ci kër gi dem ca jàkka ja féete fa def lu ñuy wax la atikaaf du ñëwaat ci kër gi lu dul ne daf fee am soxla bu ko gaar mu war a delsi ci kër gi mbokk yi laylatul xadar daal a ngi noonu weeru koor a ngi noonu fukki fan yu mujj yaa ngi noonu ah, mu mel ni nag dañuy wax ne ah, loo gis ci àddina rek dañuy wax ne la ci mujj ñaari mooy ëpp barke moo tax yonent bi daana wax ne al umuru bi xawaatimiha mbir mu nekk ca jeexital ga la doole ja nekk kon mbokk yi ci jeexitalu koor nañu yëg ni ci la doole ji nekk loo daan jaamu yàlla fexeel nga nàmmaat sa bopp fexe koo yokk mu bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ci digte it sayyidatuna Aïcha di ci digte ay soxnaam ne leen bu guddi gi ñëwatee na ngeen di toog te seeni kurus di jàng allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni yàlla daal yow buur bu tedd nga buur bu yiwe nga buur bu baax nga ëppale nga sa bopp jaam bu torox tàllal la ay loxo nga delloo ko loxo yi neen yàlla daal maa ngi lay sàkkul njéggal ci sama bopp yàlla yàlla na nga ma jéggal ku ko mënul ci arab nga wax ko ci wolof yàlla daal buur bu tedd nga yàlla daal buur bu tedd nga yàlla maa ngi lay ñaan yaa moom njéggal yàlla na nga ma jéggal allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa faafu anni mbokk yi ku ko mën na nga ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu xamoon li guddi gi ëmb ci yiw li guddi gi ëmb ci xéewal jaroon na kenn ku nekk fekkoon sa waa kër ñuy nelaw nga sotti leen ndox ba ñu tooy ngir ñu mën a jóg am courage jaamu yàlla laylatul xadr daal bu ñu xamoon li ci nekk ci dundal jàkk yi dundal ci kàddu yàlla dundal ci alquran buñ doon raam di ko def sax dana ko jar parce que danañ ci màng yiw woo xam ne kenn xamul nu mu tollu mbokk yi loolu mooy seen laylatul xadr li ci nekk ci tuyaaba li ci nekk ci yiw yàlla na ko yàlla làmb ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nangul nu jaamu yàlla yi nangul ñu koor yi nangul ñu njàngum alquran mi nangul ñu sarax yi nangul ñu ndogu yi nga xam ne organiser nañ ko ci togg ko ci ku ci def sa benn dërëm yàlla na la yàlla fulal la ca des ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di leen jox dig daje ci suñu beneen jataay di leen wax rek waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu